saa su nekk mbégte la ñu am suñu waree jàkkaarloog yéen ci chaîne bu mag bi nga xam mooy Dakar People comme ni ñu koy defee rek tey nag ñëw nañ fi nga xamante ni mooy Ouest Foire c'est suñu frère suñu xarit muy Don Diego ku ne Don Diego xam ne macha allah wax dëgg yàlla nekk na ci milieu bi yàgg na ci mais mi ngi fi def liggéey bu am am solo ndax ku ne xam ne ñoo nekk ci dese ba tey suñu yaay maman Kiné Diouf Diaga moo fi bàyyeekoo samedi mais tey nag koor bi di ñëw 15 heures incha allahu rabbi mais tey nag dañu yemale lépp mais moom dañ ko fi fekk te il fallait que ñu waxtaan ak moom ndax wax dëgg yàlla mbégte lañu am suñu waree di jàkkaarloog moom ndax lu ci bëri bëri dinañ ko confirmer ak tey dinañ ko waxtaan ak moom ay tey dama koy jox mu nuyoo après ñu wéy li nga xamante ni mooy waxtaan bi ay ca frère nuyu naa la. salaamaaleykum salaamaaleykum Dakar People nuyu naa leen fay naa leen sant la bu baax a baax a baax di la bëggee euh, soxna Aya vraiment ngay def liggéey bu correct bu am solo nga ànd seeg sa caméraman bu ñaawul bi Aïcha sama xarit moom moom daf ma sonal rek Aïcha moom yàlla na ko yàlla lafal cat dolli ko doole dolli ko surtout tamit euh, euh, xam-xam parce que moom bi mu diggee ci liggéey bi ba léegi gis nañ ni vraiment ñun xam nañu liggéey bi ñuy liggéey ak ñu dul liggéey moom daf ci dem ak full ak fayda ak fit parce que metti na neexul ñu koy encouragé di ko jàppale aussi di ko ñaanal euh, vraiment yàlla dëgëral taxawaayam yokk xam-xamam. Mmh. ayca doon jéego ku xam ne ñoo nekk ci ci ci dëj suñu maman Kiné Diouf Diaga moo fi jóge ko bu yàggul tey nag la code bi ñëw a quinze h actuellement nii sax mën nañu wax ne sax ñu ngi fi nga xamante ne mooy armée Yoff bi ayca boo ñu waxtee sa digganteeg maman Kiné Diouf Diaga lan diggante la boo xam ni <clears throat> ku baax la ku am diine la. ku yar ay doomam la ci diine comme ni ko Thione Seck defee eh, borom këram ku ku ku ku fermé wu ku tëju mu bëggul fës donc euh, daan def lu baax ci almeer yi daan def lu baax di sang néew yi parce que boo xamoon yool bi ci sang néew euh, wallaay di nga ko def parce que tuyaaba la boo xam ne dañ la koy dubleel di jox ay nit ñu lekk ak naan di jox ay kër yu bare yoo xam ni moo leen di yoral dépense am ñoo xam ni moo leen di fayal seen location vraiment moom maman exemplaire la ko ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fii mu jógee parce que suñu xel dal na ci moom euh, quoi qu'on moom am na diine te soppoon na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chance boobu la am ku bëggoon yonent bi la ba boo koy nax ci yonent bi sax di nga ko nax waaw. Mm. ayca bokkoon nga ci famille bi ndax mën nañu wax sax ne maman Kiné Diouf Diaga am yenn relation yu ngeen séq séq ki nga xamante ne mooy doomam Wally Seck tey bi nga yëgee dese bi tey nan la def ci bon bokk naa si ñi ko jëkk yeeg ay huit heures laa ko yeeg le jour même parce que ay six heures du matin je crois que la wàcc liggéey mhm. sama benn xarit Mahfouz wax ma ko ma ragaloon ko wax parce que euh, avant ngay euh, wax euh, information yu mel noonu mhm. foog nga gëstu ko gëstuwaat ko mhm. bi ma demee ba am ci lu ma leer nag ma woo sama benn xarit le PDG de Diaspora 221 Babacar mi ngi Londres Babs tamit bi mu defee gëstoom xam ni dëgg la après mu dugal ko mu mu mu choqué ma nag mu choqué ma parce que sama yaay dee na sama papa dee na donc ñëppay dee àla kulli àll ba bu ñoom tund di nga ñam dee euh, que mu nekk euh, lu ma lu ma metti mais dellowaat sama xel ci yàlla gëm yàlla parce que fu ma mettee mooy mm, famille bi mu dal et que que jiitu ci famille bi nekk ku am tur muy Wally Ballago papaam génn àdduna même pas <coughs> magam génn àdduna même pas yaayam génn àdduna ma xam yaay ni mu mel ci doom ak wàllu ni mu mel ci yaayam parce que doon na def chaque deux jours trois jours mu dem France taf taf ñëwaat kenn xamul lu mu doon dox boobu mu ngi doon dem di xool yaayam di taxawu yaayam parce que yaayam rek moom la fi dese woon yaayam tamit fonkoon ko di ko ñaanal pour mu yegg fi mu war a yegg euh, mu nekk nag lu metti lu metti lu metti lu dal famille boobu euh, ma leen di massawu di leen ñaanal ñu am xolu muñ di ñaanal surtout tamit waale mu am xolu muñ xam ni vraiment metti na ci moom ku mu daloon di nga xam ni metti na parce que man xam naa ni ci valeur yaay en plus euh, en plus mu nekk xale léegi nee naa ko nag màgg nga yaa war a mën a gérer famille bi yaa war a mën a vraiment doxal te nañ ñu dimbali nañ ñu dimbali ñi nga xamante ni fii ku nekk am na ku la bëgg ak ku la bañ mais nañ ñu dimbali may booy bi jàmm bàyyi booy bi euh, mu am esprit tranquille parce que tamit euh, quel quel que soit le fois lu ñu mën ti it sénégalais la te euh, vraiment booy bu baax la booy bu yaru la booy bu am yitte ci nit la donc man lépp lu ma ko mës a waxal tamit wax woowu ma ko xool dama ko waxee pour xamal ko parce que bëgg naa mu yegg fi mu war a yegg vraiment ndax xam nañ sa diggante ki nga xamante mooy Wally Ballago Seck ku ne doon ko ne Wally Ballago Seck ndax bokk nga ci ñi nga xamante ne ñoo ko yar tey charge bi tegu ci kaw mu metti lool mooy comme sànq li nga wax rek ah, ku fi jëlee bàyyi jëlee fi yaay jële fi mag du fi bàyyi kenn ñun ñu sax du fi bàyyi mais tey comme ni mu demee comme comme comme comme kaamam ni mu ni yaayam papaam dem bu yàggul yàggul magam dem tey yaayam dem tey boo amoon tey kàddu yoo tey ki nga xam mooy Wally Wally Ballago Seck tey lan li ma wax mooy mu gën a waat dëddu àdduna mm-hmm. mu gënaat fagaru mu gënaat jege ay mbokkam mu gënaat jege ay nitu démbam mu gënaat taxaw inspiré wu di xalaat di réfléchir ci doxal bi mu war a doxal seen bàyyat musique bi ba ci kanam bu dee un an sax mu def ko parce que nu ko bàyyi ci deret bi la euh, xoolaat boppam xoolaat entourage am euh, def li nga xamante ni moom la war a def parce que magum jëmm la ñu gën ko dooleel gën ko jàppale gën ko encouragé Euh, je pense que loolu laa amoon ci loo xam ni war naa ko wax ci ci ci ni mu war a mën a doxalee après suite bi. Mm-hmm. ci bi loolu amee ñu dégg fi ay révélation ñu ci bëri génn nañ am nañu waxee tey en tant que koo xam ne porte de voix boo waxee nañu dégg la tey ñi doon ci doon wax tey révélation bi ñu ci wax tey boo amoon tey loolu leen wax la mais ñu tëj seen gat ñu noppi tëj seen gémmiñ tëj seen gémmiñ xam ni yàlla mooy dogal fii kenn mënu fi rey kenn ku dul buur bi azza wa jalla ñiy wax ñëpp dañuy wax pour leur intérêt di wax pour ñu gis leen ma di wax pour ñeme yàlla wallahi ñoom ñëpp di wax dañuy fen kenn waxu ci dëgg kenn waxu ci li am buur bi azza wa rek moo la moo ñu sàkk moo ñuy jëlaat yàlla rek mooy moo wóor mooy dëgg mën nga yàq nit mën nga tardel nit mais mënoo Euh, sacrifier nit parce que yàlla moom lay neex mu yàllaa ñu moom yàlla moom doomu aadama ñun alalu yàlla lañu yàlla lay neex mu récupérer jël ñu moom lay neex mu bàyyi ñu fi donc ñooñu ñëpp di wax ñu ngi bakkaar ñu ngi tooñ ñu ngi yepp yàlla parce que chaque fois VAR bi génn leen ci football bi ci ci politique bi ci làmb ji parce que dañu war a xam ni yàlla moo xam liy xew suba ñoom seetkat yi xamuñu dara luy xew suba mhm. dañuy fen rek mhm. dañuy fen rek mhm. dañuy fen rek. est-ce que jar na ko bëgg bës lañ ko mën a woowee wala bëgg nit ñu nit ñu nit ñu xam la wala bëgg nit ñi gën la ràññee mais jaral na leen ko. parce que ñoom dinañu bëgg gars yi di leen saaga di leen euh, commentaire jaral na leen ko moo waral ñuy woo siti di ko def mais site yi laa mere yi ñooy yéen moom bu leen dox ci loolu ñoom ñuy dem di leen tàllal micro yi ñoo yabaate ñoo xam ni kii du nitu yàlla kii c'est un njabarkat kii féticheur la kii nit ku bon la kii gëmul yàlla gëmul yonent bi boppam la gëm ak li muy liggéey donc amu leen droit dem genre yooyu di leen wane genre yooyu kenn warul leen wane wallahi kenn warul leen wane nañ leen bërgal classé leen de côté euh, dem ci nga xam ne ñooy nitu yàlla yi ñu ngi fii toog laxatu di weetal suñu borom ñooñu ñoo mat a vraiment seeti. su ma la déggee ñiy monté vidéo yi surtout part boobu ci côté boobu ci ñoom lañ koy teg parce que am na yenn wax yoo xam ne bu ko waxee jarul di ko dugal. am na wax yoo xam ne moom nit jarul mu koy dugal parce que bu ko dugalee kooku tamit ci toor bi lay bokk. Mhm. dinañ ko ne parce que xam na ni kii li muy wax dafay fen donc euh, pour bu am ay vie jaru ko franchement. Mhm. après nga wax li nga wax pare toog sa kër nit ñi seetaan la après boo toogee ba gis nit ñi di la seetaan ñu la leer ñu bëri xam ne kii li mu wax waru koon après lan lan lay ñàkk jom du ci yëg dara lu dul xam ne dafay fen mm-hmm. moom waaw di di nax nit ñi di waaxu ci maayanu nit ñi te nit ñi tamit xam ni dafay fen moom it mu xam ne dafay fen donc euh, du am gàcce parce que ñooñu gàcce du leen rey du ñu rus. Mm-hmm. amuñu orgoñ. Mm-hmm. seetkat ban comportement. gëm yàlla maano di wax dëgg. waaw di wax dëgg waaye mais ki war a dee benn seetkat xamul ki war a dee ki war a dee dafa war a dee suñu borom moo koy jël. gis tamit des fois genre yi bu amee dañ ciy profité. mais parce que loolu mooy seen nature. di profito di impressionné nit ñi pour euh, nit ñi seeti leen ñoom it ñi ñeme ay seetkat ak ñeme sëriñ wari leen pour ñu dem dem def ni ñuy aaye nañu fekk aaye ñu dem ñu leen di nax rek di lekk seen xaalis rek ñi aaye ñu ngi toog mais parce que liggéeyu fen la mais ñi ay ñu ngi toog waaw ñi ay ñu ngi toog jàpp seen ñaambur nitu yàlla yi ñu ngi toog mais kuy fasal sa bopp ci réseaux sociaux yi nii sëriñ nga rek c'est pas vrai doo sëriñ. Mm-hmm. mais te pas vrai dañuy tâtonner rek bu ñu doon wax dëgg du génn ci réseaux sociaux yi di wax. du ñëpp nag boo gis am na. moom laa la wax ñi ñëpp ñamuñu ñi nitu yàlla yi ñu ngi toog seen coin. di jaamu yàlla. mais génn nag lan a def seen nature la dañu war di génn parce que ñoom génn boobu ñu def noonu. moo leen arrangé ñu nga xam ne dañuy fen dañuy tâtonner léeg-léeg ñu tâtonner tàndu mu nekk léeg ñu tàndu du nekk. <laughs> non ñoom kañ lu ñu leen wax baax na si ñoom franchement parce que dañu ñeme yàlla. non dañu ñeme yàlla. dañu ñeme yàlla yàlla rek ay dogal yàlla rek a xam li xew suba. Euh, mais après boo toogee sa di gis benn seetkat boo xam ne mi ngi seet te leer li muy wax ni des fois yow daf lay leen li muy wax ni gëmu ko après yow lan ngay yëg. non li may yëg mooy ñeme kii dafa ñeme yàlla rek man dama ko du ko xool sax dama koy zappe. ben parce que may tardé li muy wax du dëgg. billaay <laughs> dama tàyyi noonu la ñuy def rek yàlla ñu yàlla doole sutura boole ñu tamit ci ñi nga xam ne am nañu xolu yërmande yàlla boole ñu tamit ci ñi nga xam ne vraiment ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy gëm parce toujours boo gisee sama émission maa ngi ñaaxaat xale yi naa leen dee leen julli ci yonent bi am habitude di wax allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa sallim te ñu dugal suñu doom yi xamal leen diine parce que la plupart ñi xamul diine rek ñooy génn di ratatat yi ñooy yéene nit ki lu bon te ki yéene nit ki lu bon vraiment euh, yërëm naa la parce que euh, bagage su yàlla nga yéene lu bon matériel yàlla marchandise yàlla parce que ñun ay bagage su yàlla lañu doomu aadama boo gis suñu borom am na fu mu ko teg tey wax naa ci Wally loo xam ni loolu la kenn gënu ma ko bëgg am nañu mu metti am na ñuy jugé ci xamuñu li ñuy jugé lan la wallahi yàlla nañu yàlla dolli xolu muñ rek te moom ci boppam yàlla na ko yàlla protégé Wally yàlla na ko yàlla may xolu muñ xolu mu dëgër waaw man daal man daal li ma mën dinaa ko def di wax di wax di ko gën ñaanal aussi ak njabootam parce que yan bi dina dis trop ci moom hmm, di rafetlu Youssou Ndour li mu def ba léegi mi ngi teg alxuraan gis naa kalsi génn di ko rafetlu ñun ñëpp ñu ngi koy rafetlu vraiment ñun tamit suñu télé leeral TV ñu ngi rafetlu maa ngi ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni métti na leen boobu boobu ba léegi tooguñu Pape Omar bëgg waali ndeysaan suñu directeur programme bi ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi am yërmande ci booy bi di ko ñaanal. Mm-hmm. ay euh, bëgg nañ li ngay def nit ñi ne ban lañ mën a xaaraat donc waaw waaw waaw continuer sama liggéey rek animation bi may def di gën a bëgg nit ñi di gën a respecter nit ñi di gën a wax nit ñi nañ ma ñaanal erreur bu ma ko defee nañ ma balaax àq parce que nit matul xam ni man ku ma xam-xam ni sama xol rafet na duma ko bon dëgg moo may rey fu ma fekk fa la may bàyyi parce que lébu laa aussi ñun euh, dara faxul suñu bët judd nañu fa ñu waru a juddoo doon li ñu doon donc euh, euh, ku ñu war a wax dëgg dañu lay wax dëgg boo ñuy bàyyi nga bàyyee ñu aussi waay. looy nga xam ñoo nekk ci showbiz bi comme ñu ne ci liggéey bi di liggéey tey boo amoon tey kàddu yoo leen di wax lan la. ñu bëgganta rek xam ni concurrence am na ci lépp mais nañu bëggante rek yéeneente jàmm. Mm. bañ a dem di njabarante. voilà parce que am na ñoo xam ni mën nañu liggéey yu bon mais mënuñu rey ni tardel la fakastal la mm. mais nañu delloowaat seen xel ci yàlla xam ni biis bi yaatu na mm. ku nekk sa wërsëg ngay jël vraiment. maa ngi jégalu nag di jégalu ñëpp di wax ni euh, émission bi neex na gàtt na am na sens parce que dañ nekk ci dese nekk ci vraiment waru jël sax mais dama xam lu may def ay euh, Aïcha parce que liggéey bi rafetlu naa ko moo tax ma jël entretien bi yéen tamit di leen ñaax ni leen yàlla na leen yàlla gunge ci li ngeen nekke di leen gën a jàppale man daal pare naa léegi foo leen ma woowee rek franchement dinaa ñëw parce que Aïcha war na toll fa mu war a toll merci maa la gën a kontaan yow tamit sa question yi saf na. ay <laughs> ayca merci beaucoup Aïssa Don Diego euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la kontaanee di la remercier di wax yow moom euh, ci ñun nga bokk macha allah ndax li may faral di wax rek. ku def ku deful dara doo dégg dara te moom macha allah wax dëgg yàlla mi ci milieu bi def liggéey bu am solo te ñu ci bëri bu ñu bëggee télé grâce à moom ndax émission am day kaf day ree da koy neexal macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a ba ba lépp lu suñu borom defal ko ko ay di yaay suñu xarit maman ñu ngi koy jaalewaat bu baax a baax di wax yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ndax wax dëgg yàlla daal yàlla na fi gëj loolu la ñuy wax ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp ay salaa ci àndaloon maam it macha allah ñu ngi koy bëggee di ko ko jaajëfal suñu ko fi ba si kanam ndax nee naa la chaque jour li ñuy faral di wax di liggéey ni pare tegu la benn pression dafa neex te noonu lay def ak ñun kon dañ koy jaajëfal ndax jàmm mooy na yàlla wéral yal ko kontaan ci ñëpp jaajëfal nañ ñëpp ba beneen yoon ci beneen émission Aïssa merci beaucoup jërë ngeen jëf